salaamaaleykum les patriotes maa ngi nuyu di leen ziar man seen frère Cheikh Anne dafa am lu may laajte rek bu nekkee ne yow dañ ne kilifa diine nga ñu jàppale si sàcc si suufu suufu Sénégal suufu askan bi nga sàcc ay hectares ndax dañ dañ kooku dañ ko war a suturaar wala dañ ko war a bàyyi mu continuer di wuyoo kilifa diine ndax kilifa diine kat du sàcc liste bii nga xam ne mooy liste suuf suñuy sàcc Sénégal dafa am ay turu kilifa yu mag yu fa nekk. man nee naa tey maa ngi soog a comprendre lan moo tax ñu bari noppi woon ci mbiru le président Ousmane Sonko bu mas a nekk président bu mas a nekk dala si réew mi nekkul woon ne président Sonko dafay dafa dafa dafa ñëwoon pour jël seeni taalibe de déedéet dañoo sàcc xaalis xaalisu Sénégal ñenn si ñoom ba pare sàcc suufu Sénégal ñenn ci ñoom léegi nag ñoom ñu ngi si liste bi ñu si bari liste boo xamante ni ay hectares lañ sàcc si suufu Sénégal état moo leen ko jox léegi ñooñu damay laajte ba tey dañ leen a war a weer. wala dañ leen war a bàyyi noonu léegi li may laaj mooy ndax état bu Sénégal am na droit publier ay tour am ñu mu suturaal am ñoo xamante ni duñ leen suturaal wala dañ leen di yemale ñëpp ndax sàcc sàcc la léegi loolu laaj la sàcc sàcc la wala dafa am sàcc VIP ak sàcc baaroo la <laughs> la nag laaj voilà laaj la rek nag bu fi kenn tontu nag tontu mer tontu xam-xam laa bëgg <laughs> tontu lee ko ci commentaire sama gars yi liste bi. sàcc yi si nekk tey wuyoo kilifa diine laa wax dañ leen a war a publier àdduna bi yëpp xam ne ñii duñu ay kilifa diine kilifa àdduna lañ wala dañ leen war a bàyyi noonu mu seet ba pare nangu alal ci nànk bàyyi leen ñibbi seen kër nit ñi continuer leen topp te fekk ñoom ay sàcc lañ jubal jubbanti la kilifa diine war a jàngale si la war a teg loolu mooy diine boo jubee jub ba di jubbante rek yow doon kilifa diine parce que loolu yàlla santaane mais nag sàcc li ñëpp moom ay sénégalais moom soo ko waxee ñu ne da ngeen di xeex sëriñ si du sëriñ see pure am na ñoo xam ne ay sëriñ leen ba léegi duñ mas sa wàcc doon sëriñ nag mooy di la teg si yoonu yàlla waaye Diomaye mooy sëriñ le président Diomaye Faye parce que moom li mu wote loolu la yàlla santaane jub jubal jubbanti Ousmane Sonko nag maa ngi soog xam président lan moo taxoon lobby yu mag xeex yow du problème da bëgg a jël seen taali bi de problème bi nekk suuf si la <laughs> allahu akbar moo tax nag ñu war a jëli Macky Sall indi ko